saadiq la ngir seere ay jëfam murid saadiq la saadiqatun raw na pexem marida du jëf tuuti soxna baali moomat lum jëf nga neel la ngir nga ndoom la moomat du jëf lu tuuti soxna baali moomat lum jëf nga neel la ngir ndonoom la moomat seere sa mooy yoor yoor bisu màggal ga la dëkke jeeg maamam borom màggal ga dëkkee ndeyam ju baax ja soxna may mu baax ma bintul xadim kanamu jumaa ja moo nu soxna may ci am yitteem ga booleeg njariñ yem naa ko ak ngëmëm ga moo doon soxna may ci xam teraanga te mën ko lool ci wax amul yaraanga fa la teg suñu kàddu dëggal ko rek ñu gis ko ci yow itam te mooy lislaam mooy àndandoo yëgante fonkante eh, yàlla dogal nag sunu bàjjan bi fi nekkoon di sunu waajur di sunu kilifa di soxna may dama naan bàjjanub lislaam la ndax jëmmam la joo xam ni maam sëñ Tuubaa da cee boppam rek eh, ndax lislaam li muy kawe kawe jigéen moo ci jëkk faatu ngir gëm rasulullah kon lislaam ku xam lan mooy reen ya bu ci jigéen taxawoo ba feeñal lu mel nii du la jaaxal kon sunu waajur wi nga xam ni moo fi nekkoon te laylatul xadr mu nekk bis boo xam ne benn bis la ñu di ko wër di ko làmbatu ah mu andil nu ko ba tegal nu ko fi mu ñu ko tegal ñu doyloo ko gëm ko woolu ko sàmm ko di ko topp mu di ko topp ba nekkatu fii yow mi nga xam ne yaag say mag si mu du ma fus jàpp ngeen bis boobu nam ko jàppe woon a ah, la ngeen man ngeen ko ciy def ngir lan teral jullit yi ak teral bis bi yàlla na yàgg ñu ñëw ngir kontante lool jox dama ko jox loxo ni ko daaw laa fi mas ñëw ah, bii moo ko ñaareel man suma masaa ñëw si ngunu ma fuus rek laa yem waaye daaw la ma ne naa agsi fii kon sëriñ bi ñoo ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal wér di ñaanit loo li nga xam ni euh, sunu maam mu tedd ma maam Serigne Touba amoon na ko ak suñu waajur wu tedd wa maam Cheikh Mbacke ah du ma ni na ko am waaye bu la ci kenn ëppale li mu fi bàyyi bu la ci kenn ëppale ak ñu ngi ko bokkal ñëpp ñoo ngi siyaar ñëpp di ñaan ku fi ñëwit yàlla nañ fi ñëw déwén. dana ma dis lool waaye nag ndigal la jóge ci suñu kilifa suñu waajur euh, Serigne Cheikh Abdou. Euh, maa ngi koy nuyu bu baax a baax euh, di ko ziyaare di ziyaare njabootu sëriñ Touba gépp di ziyaare njabootu Soxna May gépp suñu maam euh, di ko nuyu moom Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne moom lañ fekk ci barab bi di ñaan mu jàppale suñu ziar Serigne Modou Mahfous di suñu kilifa moom mi nga xam ne mooy taxawal bis bi te lépp mu teg ko ci loxol. doomam di jëwrinam suñu wajur sëñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma di am mbégte lool di ko fekk fii saa su nekk euh, fii nag suñu barab la euh, barabu soxna may moom barabu sëriñ tubaal la euh, ñëpp ñëpp bokk yam ndax soxna may moom ñëpp li fi nekkaloon ñu sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko Serigne tubaa moom soxna may liggéeyal na ko lislaam te liggéey boobu ñun ñëpp ñu di jariñu ba ba fuñ toll nii te liggéey boobu lu xam ñëpp ràññee nañ ko ci yoon wi ñu ko amoon soxna si ci nekk taalib Sëriñ Tuubaa ginnaaw bu mu nekkee doomam nekkoon ab jullit bëggoon lu baax euh, fonkoon bokk euh, fonk jullit yëpp loolee nag wax dëgg yàlla euh, mbégte la ndam la ci yoon wi mais eh, doom ji sunu mbokk di xarit nee di leen xamal ni ko fi yàlla tege nee li ñuy wax naan mérite la ci moom loolu la yàlla dogal ci sëriñ Cheikh Abdou Lahad nee ñun ñi fekke nanu jamonoy maamam soxna may nee taxawaay bi mu taxawoon nee ba mu demee àjjana tey sox soxna Baari nekk feek sëriñ si nee man dama taqu woon ak soxna Baari ci soxna Baari nee nga xam ne moom la ko sëriñ Tuubaa sédde wàcce ko ci ay loxoom moom mii toog ne loolu yàlla na ko yàgg taxawe yàlla na ko yàgg taxawe ñun daal ñu ngi koy ñaanal fu nu toll jërëjëf Mbacke soxna si alxuraan jaral na ko lu ne nituk alxuraan jaral na ko lu ne daaray alxuraan jaral na ko lu ne lu def na ko ci man xam naa ci dara ndax ay sëñ daara lañu sama waajur fii la nekkoon ñu bari xam ko ñu bari mu jàngal leen di xaritam lool ba fab doomam ju jigéen yi nga xam ne bokk na ci ñi njëkk a mokkal alxuraan ci Touba ci jigéen tuddee ko soxna may jox ko ko muy jàngale alxuraan fii bari na ñu may déglu ci gone yu jigéen yi fi nekk bokk ci famille bi ñu ci ëpp moo leen jàngal soxna si féete moom lan lenn taxut nag mu féete woon ak moom téye ko ndeysaan lu dul alxuraan ji nekk ci moom rek loolu la ko fanke woon daana fexe daana sax ay liggéey yoo xam ne bu ko bëggee def mu ne ko dee may mun a yow am na liggéey yoo xam ne def la huma la yow alxuraan rek laa la féetale góorgóorlu ci ëllëg yowmal xiyaam ku ne say mbir xamoo ca dara bu ñu la dimbaliwul du sotti nga dem ba sa doomi bopp mën laa dimbali nag dara gënu koo neex te loolu alxuraan képp a ko mën alxuraan képp a koy def soxna si nag loolu yi mu xam ci ne Serigne Touba noonu la bëggee woon alxuraan noonu la fonkee woon alxuraan moo tax mu jël laylatul xadar moom def ko muy bisam jël laylatul xadar def ko muy xàmmikaayam bi nga xam ne ku ko tudd rek tudd soxna Mbay sëriñ bi ne mu ngi nuyu sëriñ Abdou Lahad Gaynde Fatma ne di ko siyaare di ko ñaanal ne di ko damoo ne kër gi yàgg naa fee ñëw de fàttaliku naa yoon boo fi ñëwee doon fi andi ngëmbeen ngëmbeen nee na booba daa guddi ne booba bàjjan fattu na ne ma andi ngëmbeen mi ne rumbaleel colli lan ko raye ca ginnaaw Linguère ne bi nu xëyee lanu door a dellu bàjjan ñaanal ñu ne bàjjan nag moom day borom cër bu rëy Sëriñ Tubaa moom xam àddunaam ak jegeem yàlla nee tax na mu fàggu lépp nee njabootam gi ñin ci xam bi sëriñ bi ñibbisi fii ay tuut tànk la waaye fagul na ñépp bàjjan nag moo ci raw nee mu baax lool bëggoon borom daaru lool borom daaru bëggoon ko lool nee mu liggéey itam ndax laylatul xadar gi moo ko xalaatal boppam ca daaru mar naan i attaque ñeneenti téeméer yu tegal bisub màggal la soxna baali dem dëkkeek ndeyam ja bintul xadim ca kanamu jumaa ja jooy naa sëriñ Aliyu at meek di laylatul qadrin tal tasin meek mbokk taalibe fi teew yëpp ñu ngi yëkkati suñuy kàddu di nuyu di ziar bu baax a baax sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke yàlla fi yàgg te moom ak njabootu Xaadimu Rasuul fi teew yëpp di nuyu bu baax nuyu sell ci sunu turu bopp ak turu délégation bi ñu àndal sëñ Abou Falilou bu baax di beral yu nuyoo suñu xarit suñu jàpp naa ne wax si ginnaawam yombut ndax kàddoom day jóge ci xol ak ci xol yi ndax lépp day lalu dëkk muy nit ku baax ku am taxawaay ci yoon wi ku amal njariñ askan wi ku jàppale président la paix Macky Sall waaye tamit ku am yéene ci man mii joxe li mu wax sànq mu wér la bu moom kese wala yéeneeku kon li mu wax sànq am na bu yàgg waaye nag àdduna sëñ bi yaa gën a xam loolu lu jot yomb sëñ bi sëñ Cheikh Abdou Bali président de la République Macky Sall moo yabal man ak délégation mandal yëpp ñu ràññee ci bu baax a baax le gouverneur de la région de Diourbel dégloo waay dégloo ñu bu Mbacké it ak sous-préfet bu Ndaam ànd ak le maire de Ngaabu Dala Ngaabu ak premier adjoint ak conseil municipal yi nekk Mbacké ak conseil municipal yi nekk Touba Sow laa doon jëkkee ndax ñooñu dalal ñu ràññee bu baax a baax suñu xay Moussa Diouf waaye ñu ànd ak ci ak ñi nga xamante ne nii am nañu nombre tànk ci coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam ñëpp teewlu fay muy député yi waaye au conseil yi mel ni Mafari Ndiaye suñu doyen Alla Sylla ak it Mbaye Tine le mën naa ne ak responsable yëpp pour lim rek doo président moo ñuy waxoon bu yàgsee fii nañ njëkk ci yow ziar la feddali kóllëre sa diggante ak moom ndax démb bi paree conseil de ministres di waaj pour dem Daaru Salaam la ñu président wax ne ma ah suba kat la laylatul xadar waaye dama bëgg particulièrement boo demee nga santal mu baax a baax le ministre conseiller Cheikh Abdou Bali Mbacké ndax li sëñ Cheikh li sañ Bass wax sànq lu wér la président xam na sa taxawaay xam na sa yéene gis na sa engagement te naw na sa jikko sa jikko boobu bu naw nag ñun ñu dëkk ak ba ko yow parti bi ba ko yow dëkk bi ba ko yow département bi bu ci gisee benn ñu gën fukk wala téeméer ndax yàgg nañoo ànd yow ci langue politique bi waaye li sëñ bi wax dañ mën nañ koo dëggal ndax jikko ju baax ak melokaan bu rafet lañ gis yow lañ xam ci yow it tey dañuy wax dëgg te yàlla tax mosuñoo dégg fenn ñu ne yaa wax lu wax wut wala yaa def lu def wut loolu nag jàpp naa ne politique bi ngay def dala cee fekk ndax li may faral di wax saa su ne rek politique lu mu fekk ci yow rek mën na koo yokk su yokkee su fekkee ci yow ak mbaax da koy ful bu fekkee ci ci yow it leneen it da yokk ful ko moo tax fan yëpp ñu gis yenn comportement ci réew mi ci fànn yëpp nag ndax jikko yi jàpp naa ne war nañ koo mën a bu baax a baax kon sëñ bi bis bi sa bisu maam la ndax ku wax Laylatul Qadr rek sa sa xel jam ci soxna Maymuna bintu Xaadimu Rasuul ndax taxawuñ bu daan taxaw di si jàng xasida di si jàng lu alxuraan ndax bis boobu bis bi attan na bis attan lu ne ndax. leetu xadar yi nekk na guddi yi ay junni guddi kon lu ko daan taxawale soxna Balla ñëw wutu ko ci te jiit nga ñëw ful loolu jàpp naa ne képp kuy taalibe rek war na ci delloo njukkal sant na ci bu baax yaa soxna Astu ñu koy ziar bu baax it kon sëñ bi lay ziar bu baax di daanee foofu suñu kàddu rek di sàkku si yow nga ñaanal président la sa wëllëre réew mi yàlla yokk njàmm ji yokk ngëneel yokk xéewal ba xamante nii moom la bis bi làmboo mu wasaare ko ci àdduna bi yëpp wasaare ko ci réew mi mu nekk li gënal askan bi waaye tamit nekk xéewal pour képp kuy taalibe jërë ngeen jëf wa salaam. monsieur ngi lay euh, delloo nuyoo rafetlu kaddu yi kawe na lool waaye lépp seen bu baax rek la ngeen may ñu nuyu kilifa yi fi teg di nuyu suñu xarit bopp bi di suñu lépp di sëriñ Bass li wax lépp dëgg la maanaam yàgg nañ lool ca booba xañ na ni ni nga doon def man def moom noonu parce que loolu sama man su may ànd ak nii dama ànd yow yàlla mu neex ak mu naqari ak situation ba nekk sama nekkul ci loolu man sama diggante ak yow daa xool li nga li nga ma def rek laa si ñu li ñu def ak loolu moo sawul ma doxale woon noonu te tey jii si nañ ndax la gën a ma nekk ak boo fi dëkk ci sa xool ak na nga def ndax yàlla mooy joxe te kenn ñàkkul dara monsieur le ministre sa délégation boobu bi nga àndal mu jóge ci président di ci jiital gouverneur mu ngi lay nuyu di la xamal ne taxaw na taxaw ba rafet ci bis bi danañ ko biral léegi ca kanam loolu du waxi fii ndax wax ju officiel la ak conseil municipal Mbacké bi nga àndal muy le premier adjoint moral ak ñu topp jëpp kaddu yi du gudd ndax li mu si wax léegi fii dañ ci barkeelu rek ndax fii lu soxna si dëkkoon te at mu nekk ca plus de 30 délégation bu ñëw fii la njëkk a jaar soog a dem ca dal ba loolu mooy tradition bi loolu mooy li ñuy respecté jii. di la yóbbante ci sa kilifa di le président Macky Sall di ko xamal ne ko ñoo koy sant ñi koy gërëm lañ ca war a wax ci guddi gi lañ koy wax waaye li nga xam ne mooy yéeneem ci dëkk bi rawatina yéeneem ci ci kër gi ñun am na luñ ci xam. kon ñu ngi koy sant ñu koy gën ñu xamal amuñu amuñu payam ndax euh, asgor ak yëg nga ko mën a téye man yëg moo may téye ndax seen duwaa defal ma lépp fii amu boo xam ne tabax naa ko ginnaaw bu ma ànd ak moom kon muy ànd ak am naa lépp ba fii doo fi gis rek jiitu na kon amul lu may séntu lu may séntu ci nit ndax seen duwaa teral te loolu wax addi tukki du dañ dama koy fekk fi laa koy bàyyi kon nag ma ko sant ma ko gërëmoon ne ko jàpp gi ak seede yu rafet yi lépp li ngi ak man maa ngi rek di renouveler suñu engagement ci xam ne lépp lu mu nekk ña nga ci loolu moo ci gàttal daal mooy li ñu koy wax te loolu mooy ñi nga xam ne ñu ne loolu mooy ñu ci ñoom comme ñoom ñëpp itam nag ñu ngi fi teew seen yóbbante ci moom mooy na leen gën a jàppale ndax soxla nañ ko ngir ñu mën ko jàppale ça je le dis de manière solennelle et c'est important ñu ko fi nekkal ci dëkk bi na leen gën a jàppale ngir ñu mën ko jàppale ndax loolu mooy seen yéene mais liñ bëgg amuñ kattan buñ ko defee yaa ngi ci jéem yaa ngi jël ay nit yaa ngi leen di dimbali ci li la yàlla jox waaye na leen jàppale ngir ñu mën ko jàppale monsieur le gouverneur lool mooy message bi.